mbokki Sénégal ndaanaan bi yegg si na kookal la ñu ne la numéro un kookal la Fallou Ndiaye promoteur bu mag bi ki nga xamante ne mbokk yi bu yegsee amateur kontaan xam ngeen lu mu defati dafa jël ñaari xale yi nga xamante ne mbokk yi ñoo toll ci classe d'examen kookal la ñu ne Boy Diop doon soow mi mbokk yi moom la jël boole kookan mbawor mbawor bi kookal la ñu ne jeex jàmm na lu rëy képp kuy a xarañ ci làmb kooku la ñu sargalee bis jëli bekkaay boole ko ak Boy Sil loolu mooy combat spécial ba boobu it ngi ko duppee ki nga xamante mooy le ministre de la jeunesse de l' emploi et de l' mbokk yi xam ngeen lu neex ci bis bi laay Bruce Lee dañ ko sargalee ki nga xamante nii bu làmb yegsee fii da am wàllu bu rëy bokkal la ne Sa Touba xaritu làmb ji Sa Touba mi nga xamante ni képp kuy mbër sooy bëri di tudd Sa Touba woo ko mu jàppaleel ci bis waaye mbokk yi fàllu yamul foofu moo tax Fallou teg mbokk yi Nagastère ki nga xamante ne mooy Bruce Lee Siteu bu ante dina fa laale ak Zos mbokk yi yëlle moom ak ñoo fay daje Jinne bu ndaw moom ak Juldal Doro mbokk yi naturel dina fa laale ak Nes 2 Modou Yacine teel a ñàkk baay dina fa laale ak ki nga xamante ne mooy Thiatou Linguère Bombardier 2 dina fa laale ak doomu mi na mbokk yi rek ba mooy tijji bis ba mook internet tey bisu le 20 Fallou Ndiaye daal yegsee képp kuy amateur sa xol sedd bisu le 20 kuy amateur boo yéexee di nga tardé ndax xoolal en direct lay doon Kewel TV ak yeneen plateforme yi nga xamante ne ñoom la Fall di liggéeyal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 defe naan nag loolu palmarès du ko dàq te palmarès bu baax la ci mbër moo xamante nii révélation la bii Pikine mbokk yi waaye mbokk dama ko bàyyi nuyoo rek doo ko dugg ci waxtaan wi ndax defe naa ne bi mu fi comme ni ma ko waxee woon kaw ak fils de rek laa ko waxee nee naa ko ne moom mooy waa jàmm moom Batista dafa dafa da leen neenoon ndax dafa dugg daan ki nga mooy fils de Max duggaat fa jàpp Boy de daan ko ma bàyyi ko mu dugg ci waxtaan wi Batista nuyu naa la waaw maa ngi lay fay waaw di la ziar di ziar sa cameraman waaw di sant ñëpp di sant waa Kaolack bu baax a baax waaw rawatina waa Pikine waaw moo tax ñu mën naan doomu Pikika bi doomu Pikine meeg Kaolack waaw di sant fans club bi xam nga su mel ne ñoom Père Zeus ñoom Père Amath ñoom Père Galaye ak Père Yanma xam nga ñoom Neeleer Fawla Amical démonté waa Dakar ga di leen ziar bu baax waaw di sant waa Pikine bu baax baax di ziar ñëpp daal waaw noonu la demee. mais kañ nga dugg ci yàgguma si de 2018 dama doon jàng quoi damaa jàngoo troisième sud après ma bàyyi 2015 2016 ma dem Kaolack 2016 2017 may def boof boxe quoi c'est la pare boxe ñëw fii nag dugg Saal Abib Ndiaye. bokkuloo kon mbër yi nga xam te ne naan leer ma contrat yi su ma jubul. <laughs> bilaay affaire de mooy loolu moom. waaw Pikine moom xam nga rek gars yi moom juddoo moom soo fooyul football yaa ngi fooyee bëre ndax fii moom Pikine am na lépp. waaw la mais 2017 ak léegi yàggul def ci huit combat combat dafa mel dafa teglantoo woon. samay combat samay commencement samay combat doon tegloo mais instant bii nag la ma adversaire yi nangul jël mais samay combat doon tegloo kay dama doon bëre wel wel sax fi loo xamante ni nii adversaire war a daw. ah mais gars yi soo waxee ñu ne kenn mënul kenn waaw ki war a daan mooy daan yàlla mooy suturaal may daan yàlla na ko yokk mais su ma waree daan aussi noonu lay demee damay ñëw ñaax comme ñëpp waaw ah, parce que fii kenn mënul daan ñëpp bon bien vrai que maa ngi si huit combat huit victoire mais sama bis dina ñëw quoi waaw waaw ak na muy ñëwee bu ñëwee tamit dañuy xam ne loolu la yàlla na si man quoi mais nekkul ay affaire de jàmbaar wala mën ndax fii ku jël avance da ngay entraîné da ngay uti da ngay ak say mbokk euh, dem uti musique bu baax ñëw bëre yàlla mooy xool ko neex mu ko waaw mais man mënuma kenn bi nga bi nga bi nga bëyee sa système combat yaa Fils de Max fekk Fils de ci combat boo xamante ni nii defe naa ne monde làmb yëpp dañ ko doon bàyyi xel. mu jàpp waa ji du ko dóor ba mu tëdd boppam nga jël combat bi defe naa ne waxe sax dégg nga ko ñu si bàyyi ne woon Batista day xaw lu ko dugal ci Fils de Max. waaw combat boobu moom wax dëgg fa yàlla dégg naa su lu ne Batista warul jël Fils de Max Fils de Max moo ko mën moo ko doole xam nga waaw Fils aussi nekk ku yaru moom moom jàmbaar la Baay Faal la waaw ba nii dañuy déggante quoi moo tax combat boobu bëgg ma waaw mais mooy loolu. mais non nga wax nag da ngeen déggante waaye keroog defe naa ne na nga na nga na nga dam yeewee ba génn ci combat bi moo jaaxal ñu bari. waaw gars yi moom xaaruñu woon foofu nag. waaw ñu bëri xaaruñu woon foofu quoi parce que mooy li ma la wax rek fii moom tout le monde 18 ans kenn mënul kenn. tout le monde 18 mooy lan. waaw maanaam ñu ñëpp yem. amul kii moo ëpp doole kii moom mën amul ñu ñëpp yem ñu ñëpp a yem waaw léegi combat bi Fils Basse gis naa ne day kor moom moom xeexam loolu la day kor xeex waaw waaw waaw day xeex léegi nag man entraînement bi lépp loolu laa doon comme su ma koree nii damay génn si damay génn si suufu loxo bi mais dafa diis ba ma njëkkee koor ba may génn dafa xaw a diis quoi ma def nii mu diis ma bañ a daje coup bi loolu tax ma mu diisaat ma téye loxo bi di ko xaar mu jug ma ma moom quoi noonu demee noonu nga waaji woon bëreeg moom parce que ñëpp xamoo nañu day xeex non si man moom yaakaaroon naa dama koy wër noom man combat moom pour man par force dinaa jàpp si ndigali ndax su ma koroon rek moment bi mu lay ko da nga bëggoon wàcc bu koroon rek damay def demi sélection nii su ma duggee damay dugg sa waxtaan bi damay génn force te su ma génn moom day jàll loolu laa ko préparé woon quoi mais waaw waaw mais kii bee gaaw mais action bi dafa gaaw quoi dafa maa kor damay defee rotation bu xaw a diis bu diis ma def nii jàllul moo tax ma reculer sinon ma fa taxawoon deux secondes damay jël kuwam mm-hmm. te moom dafa te moom dafa xaw a puissant quoi kuwam boo ko jëlee rek mën na la blessé waaw mais nga nga nga nga daan ko bettuñu bay nag ndax ñu ci bay xaawil woon foofu ñu ne Batista fan la jëm nga ne non du ma dem dama fay dama fay tegaat sama siège ñu ne ñu ne fi sa bàkkoom gu réegeeg lépp nga nga jël ko tenir booy bi. ma man moom sama combat la mosuma am combat ñu ne Batista ba ko jàppee bu ñu jàppee Batista rek nga wax sama sama premier combat ba sama huitième combat yëpp te tamit yàlla fu may suturaal quoi eh, affaire yi moom lu ma la wax rek góor mënul góor man kenn mënu ma kenn aussi mais kenn mënu ma waaw loolu laa bëgg gars yi def ko seen bopp te gars yi ngelawaay nañ ñëw ñu bëre quoi parce que Asie du ñu fi nga kuñ naan xale nga xale nga bis dina ñëw ñu mag la mag la te tamit man teel naa bëre 2018 laa bëre su ma defaatee cinq ans si làmb wala trois ans léegi nga ñaata nga man <laughs> kii sama mag la kii sama mag la sama a ngi di toog kay kii ak kële yëpp la kii sama la ah. wóor na yàlla ñoo ñëpp sama mag lañ sa booy la de 2000 laa moom am mil la faatu mais mais mais nga daan ki nga xamante ne mooy fils fils fils de Sadio. boobaak léegi affaire yi xaw a yéex mooy yéexal affaire yi. problème adversaire rek mais man promoteur rek moom wel ñu may woo mais kuñ ma wax ñu ne bari saa mooy loolu. li ma leen wax rek war a daan mooy am nga daan mais kenn mënul kenn gars nañ ñëw ñu bëre. Asie duñu fi xaar. waaw te su ma xoolee trois ki na ginnaaw lii su ma defoon lii du ma daj dara te instant yi mi ngi nii di ñëw kon benn doo ma jëm mag ñu bëre balaa ñoo magal waaw comme ñun moom waaw lamb ñu ñoo ko opté quoi bàyyi li bàyyi jàng bàyyi liggéey lépp ne lamb kon gars yi nañ ñëw ñu lamb quoi ñu lamb bu baax baax. Eh. Euh, nañ ñëw ñu lamb euh, fi mu toll nii adversaire parce que nag comme que gars yi daw boo sañoon xam nga des fois nag ñii dinañ la bëgg nga bañ ñii yow yaay bëgg ñii ñii bañ wala ñii nangu Batista bu doon choix am ñaka nan la jàpp ne sunu mbëg ñoom wala boog bu leen laajoon ay jàmbaar lañ yoo xam te duñ delloo. waaw yow tànnal ma yow xoolal ma man ku ma xool du ma waa kooku du bëri ak man wóor na yàlla problème adversaire maa ëpp si àdduna problème adversaire bi laa. li ma jaaxal mooy mbëri ko te mën dama am problème adversaire ñoom ñëpp loolu la ñuy wax sama avance day dugg génn. Ah, te kenn xool samay combat xool samay combat nu mu demee. yow wëral yow wol ay ay mbër nii nga leen avance bari sax barki alxuraan duñ la àndoon avance Ndiaye. waaye yow Ndiaye ma. Ndiaye Tine laa koy tuddee. barki Serigne Sallou ñeme wu ma. wallaahi Azim Ndiaye Tine bu avance am ñëwoon ma la paas laa commencé laaj muy daw ba nii ay Typhine rek lay bëreel na ñooñu bëre ñaan damaa ñeme. Ndiaye moom xam na ne ñemewu ma fekk naa ko Kaolack fekk nañ fa. Ndiaye lan lay daw ci yow lan. Ah, laaj ko moom day tànn ay combat na jël ay combat jàng kay combat jàng la bëgg maa ngi nii na ñooñu bëre. gars yi nañ ñooñu bëre man caatu kii laa bëggoon caatu yoof mais daa am combat waaw ak Belende. tànn nga li gën a tànn nga li gën a neex nag caatu yoof. waaw caatu yoof laa bëggoon wala Belende barki Rasulullah Belende laa gënoon bëgg xeex caatu yoof moom. waaw mais fii soo bëggee génn borom daan ñu saf sapp man ñu saf sapp kese laa bëreel man mosuma daan koo xam ne dañ ne yaa kii la yaafus la man ñi ma daan dem dañuy nekk si ay série victoire ay 5 combats 5 victoire ay 6 combats 6 victoire ay 7 combats 7 victoire ñun laa daan benn mbër laa daan mu daanu muy Valdo Kaolack ñi ma daan ñëpp mosuñu daanu kon gars yi nañ ñëw ñu bëre quoi li ma leen wax rek bëgguma guma bëgguma jëg saa rek jëm ma fii affaire yi mooy loolu avant ma jëm dama bëgg xare ak samay mborom quoi waaw gars yi nañ ñëw ñu xare waaw nañ xare bu baax sa diggante ak Boy Sey Boy Sey Boy Sey 2 waaw tam gars yi tamit nee nañ làmb la gars yi moom maa ngi gis gars yi di collage moom instant yi la wax de caatuwaal tamit gars yi envoyé nañ ma kenn ak affiche yi. moom. waaw moom la champion la. waaw mi def ay preuve am tamit man tam maa ngi def samay preuve bu bu leeree rek leer na. waaw. mais dañ lay gis lu ci ëpp ci lu simple bi parce que gis nañu 10 euh, millions yi defe naa da ngay dem ba demi finale mais ñu ci bàyyi boo ñëw lu ñu sóoraale ban détermination ngay am sa diggante ak mbëru simple yi. waaw mbëru simple nag ñëpp dañoo mbë lutte avec lutte simple bi ñu ci bàyyi dañoo yaakaar ne ay du saa ne mbëru la ñu ëpp lu ñu jox favori. mais man fay ñaka moom xam fay ñaka su ma dugg see da ngaa doon gisee rek da ngi si mbër yi noonu la mu sa demee saa yu ma duggee làmb duñ ma boole si favori yi làmb yi may jël yëpp na may dugg duñ ma sax boole si favori yi te damay ñëw jël ko su ma waxee ñu ne après ñu booy Dakar bi quoi war a yàlla mais lamb moom nekkul si ay affaire de mbër laa yi ñun mbër lañ dëgg la mais ñun doomu Pikine lañ waaw bu sañse jotee dañuy sañse ba mu baax bu ñu waree génn dañuy génn waaw nekkul ñu mu la nee mbër nga rek da war a doon dof yooyu noonu mbër entraînement laa koy doon ak su ma amee combat su damay nekk nit comme nit damay sol lu rafet damay génn yee noonu demee waaw mais bu ñu jógee si lamb ji moom dañ koy sawal moom saf-saf keroog lamb billaahi gis naa booy Dakar yi ñuy bëri arène ñëpp dem loolu dafa maa neex sax ba ba dafa ñëw Wassinto dafa ne <laughs> mu mu mu bëri benn combat daan ñu daan ko mu ne mu ne yëpp ñëpp bi ñu duggee premier tour leen daane. <laughs> lim ay <laughs> lim ay mbëram ne ñëpp leen daan moom au moins na ba deuxième tour waaw doo ko daan. ah wax na dëgg mais nag gis nga loolu noonu mu si am. Mhm. waaw loolu nag moo koy yokk courage pour muy gën di ñëw. Mhm. bu mu a affaire amul teg tànk man tas yaakaar ak ak Fils de Balla ñoom ñoo mbabatloo mm. ba maa ngi bëre benn combat ñëw toog ñoo ma ne kañ dem mbabat kañ dem mbabat may bañ may bañ ba si yàgg benn jour ñu war a dem euh, Touba mm-hmm. ñu fekk ma sama gaal jël si ma ma dem ba demi final ma may lii ma bàyyi lii moom ko mën <laughs> donc ñu si deux semaines ma final ak Toubacouta un million daan ko. affaire yi waaw xaalis yi gën a bëri nag. si laa commencé nag ne du ma bàyyi. après ay nag ñëw lamb lamb lutte simple moom lu ma may bari ndox dëgg fa yàlla. amaguloo ko ci lutte avec ma si lekk xaalis lekkuma ko si lutte avec frappe. Hmm. non mukk sax. billaahi lekkuma ko. Hmm. sama hmm. télé ak yi sama nag yeeg sama lépp lutte simple. billaahi moo raw de lutte simple moo raw de lu laay kii li wax laal yoon. waaw ah, lutte simple moo raw mais moo raw de. mais mais gis la sa diggante ak ordinateur ngeen bëri combat bu métti yow moom mais dafa mel ni dafa bëri yow après ci xel ni la ci ni la ci rewee defe naa noon la noonu la li ci naxe non ndax dama am ndax day waay lañ de du am fa de. non loolu am fa ndax da fa. <laughs> naxante amu fa lan moo fa am. naxante amu fa de dëgg fa yàlla. waaw suñu gannaaw la suñu lépp la nag mais naxante amu fa de. mais ngeen bëre ci point la la daane moo tax ma ne da ngeen naxante parce que dafa bëgg yow a am avertissement moo mat waaw noonu la quoi mais ordinateur moom suñu ganaan suñu lépp la dëgg eh. li ngay wax ni leerul. non si dëggan daan bëri nañ demi final na après mu jeex <laughs> après mu jeex <laughs> mais fi mu toll nii fi mu toll nii. ba ba ordinateur daal doomu Pikine la. waaw Doudou Sané doomu Pikine la. waaw na gars yi xam loolu baax a baax. waaw mbapat moo ñu boole quoi mais du arène waaw parce que ordinateur mi ngi si mi ngi si Eumeu Sène la mënuñoo bëri arène des fois gars ba saa Doudou Sané arène mais nekk waaw la nekk waaw Eumeu Sène suma deret la waaw maam ak sama maam maam maam euh, papa ak sama maam kon loolu bëri xaju fa quoi waaw mais bu dem mbapat yi moom mën nañ laale loolu moom foo la rek waaw ab dama jeexee na dañuy gis nag ñoom ñaa mbapat bi kaw Doudou Sané bi ñu ko daanee dafa xaaju ñoo ñoom ñaar moom kii la Real Barça mais loolu mooy neexal làmb làmb fa moom dër bi quoi waaw bu si loolu génnee rek làmb nekkatul dara fa moom dër bi ñaari di xiiroo bëgg a reyante loolu mooy jaay làmb des dangay man damay def signature nii yëngal adversaire si biir signature bi bu ñu génnee ma nuyu ko ne ko jaay làmb ji affaire yooyu noonu amul problème quoi waaw man da jëlew ma wax lu wax dëgg fa yàlla foo laa ko jàppee chaque instant foo laa ko jàppee làmb jàppee ma wax lu metti quoi billaahi ko jàppee lan ngay wax amateurs yi yi nga xamante ni bëgg nañu gis Batista tooyal xaftaanam sumeeku ba lan ngay wax promoteur yi ak amateur nga xam dañuy xaar Batista. waaw promoteur yi moom gàcce ngaalaama man moom wax dëgg fa yàlla maay jot ay promoteur am naa combat bu ma war a bëre décembre waaw Kaolack man ak Sandiaf quoi waaw ñoo war a bëre Kaolack di si woo waa Pikine yëpp fan si Batista bi waa Ibiza Espagne maa si waaw ma defee de Sandiaf quoi. mais Dakar Dakar laa wax. ah Dakar kat man adversaire moo fi bàyyi sa waay li ma la wax rek man instant xool ma kii moo supérieur xool ma kii moo nekk suuf ku ñëw baax na xool tànn waaw te dama ko jël bëri ak moom waaw nekk ma di tànn ay adversaire wax dëgg fa yàlla kuñ ma jox ku ma laam boole mu bëri ak moom. kàddu yu mu lan la. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di wax na gars yi yokku ñaan yi waaw parce que boo nekkee foofu dafa bëri ay mbër bëri seen borom da ngay pour génn te Pikine daanaka koñ boo euh, na mbër kon pour ñu génn ñun faa ñu rey xam nañ lu mu laaj te si nekk bu baax baax waaw na gars yi yokku ñaan yi bu baax rek waaw ñun moom lu ñu war a nekk dañ si nekk bu baax waaw noonu la gis ngeen mbokk yi tey ni la demee woon Batista leen seet woon waxtaan ak ci li nga xamante mbokk yi moo jëm ci carrière ak li nga xamante ni moo nekk ci kanam waaye mbokk yi dinañ jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci Kéwoulo Info jaa ngeen jëf. mbokki Sénégal ndaanaan bi yegsi na kookal la ñu ne la numéro un kookal la Fallou Ndiaye promoteur bu mag bi ki nga xamante ne bu yegsee amateur kontaan xam ngeen lu mu defeti dafa jël ñaari xale yi nga xamante ne mbokk yi ñoo ci classe d'examen kookal la ñu ne Boy Diop soow mi mbokk moom la jël boole kookan mbawoon mbawoon bi kookal la ñu ne jeex jàmm mbokk yi Fallou def na lu rëy képp amateur mbokk yi le 20 sa xol dina seet a xarañ ci nekkin gi neew mbokk yi kooku la ñu sargalee bés bi daa dem jëli Bécaye boole ko ak Boy loolu mooy combat spécial ba boobu it mi ngi ko duppee ki nga xamante ni mooy le ministre de la jeunesse de l'emploi et de l'entrepreneuriat yi xam ngeen lu dañ ko sargalee ki nga xamante ne nii bu làmb yegsee fii da cee am wàllu bu rëy bokkal la ñu ne Sa Touba xaritu làmb ji Sa Touba mi nga xamante ni yépp kuy mbër sooy bëri di tudd Sa Touba woo ko mu jàppale ci bis daajal combat Zoss 2 ak Siteu bu anti sargale ko xew-xewu lamb drapeau bi du guléet bi mooy troisième édition bi mbokk yi moo tax Fallou Ndiaye lu mu def kollo la cey bi su la fee ñii la ci teg mbokk yi ñagas 2 dina fa laale ak ki nga xamante ni mooy Bruce Lee bu anti dina fa laale ak Zoss mbokk yi moom ak Petit Lafa ñoo fay daje jinne bu ndaw moom ak juldel de mbokk yi naturel dina fa laale ak Nes 2 ci Modou Yacine teel a ñàkk baay dina fa ak ki nga xamante ne mooy caati Linguère Bombardier 2 dina fa ak doomu mi na mbokk yi rek ko baa mooy tijji bis ba mook internet tey bisu le 20 Fallou Ndiaye daal saa bu yegsee képp kuy amateur sa xol sedd bisu le 20 kuy amateur boo yéexee di nga tardé ndax xoolal en direct lay doon Kewel TV ak yeneen plateforme yi nga xamante ne ñoom la Fall di liggéeyal sama gaañi le 20 Fallou moo koy yëngal